assalamualaikum bokku ñu sétane à travers Da Vision di am mbégte bu baaxa baax ñew biir daru salam ñew biir Manko nek bi Touba Seras comme ñu ko défé ci ac Dalifort def ko ak ac yu bari tay damay dalal wa Manko mo fekk ci ak président ak président supporter yi président commission sport ak président supporter yi président nuyu naa la ah, président yokal baat bu baax waaw maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu population Dalifort bi yëpp rawatina zone Daaru Salaam ak li ko wër ba fii ci Touba a bi ñu nekk di nuyu waa ASC Manko 4 yëpp ci président bi laa ko tàmbalee ba ci le dernier support. waaw nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay bu baax. Mhm. Mhm. la nuyu di la delloo. nga fàttali ñu tur bi. di di di rafetlu seen mhm. yang fii. ñu ngi ci am kontaan bu baax. bu waa Mankoka. nan ngay représenté si ASC bi. président commission bu Mankoka. jàpp ko wu. auditeur da vision yëpp. ma lay Idrissa Kandé. waaw maay président supporter ASC Mankoka. jaajëf président. ñu dellusiwaat pour ñu bañ perdre temps parce que timis na ba pare. kon bi commencé na fees boo président kañ nga nekk président ASC Manko ak lan mooy Manko kan. waaw merci beaucoup Omar euh, ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax di rafetlu sa teewaay. Mhm. di sant waa ASC Manko 4 yëpp. je mhm. pense que ASC Manko 4. Mhm. biñ ko créé euh, deux mille vingt bii la woon. le premier président s'appelait Moussa Kandé. Moussa Kandé mu ngi dëkkoon Déggo. on lañ njëkk fal président ASC e, Mankokat à l' générale bi ñu teniroon fii le 12 mars 2020. Mhm. Euh, par la suite euh, yàlla daa dogaloon moom mu voyagé. Mhm. bi mu voyagé ensemble bi toogaat waxtaan seen biir. Mhm. ne ma ah monsieur le maire dañoo bëggoon fal la. président ASC e Mankokat ma ne leen. ñun gox bi mënuñ ko bañal dara. lépp loo xam ngeen war ngeen war ngeen ñu ci. soxla. Mhm. n'hésitez pas à nous le dire. Mhm. comme bëgg ngeen ñun ñu nekk seen président. Mhm. yàlla dogal ñoom ñu woote assemblée générale ma ñëw. bu ma yegsee dañ ma ko fal à l'unanimité. kenn xëccoo koog man. ndax dañ ma ne gox bi sa gox la. ASC bi sa ASC la fal nañ la ko. ñu ma ko falee it loolu c'est fin deux mille vingt. depuis deux mille vingt ba wax ak yow maa ngi nekk président ASC Mankokaat deux mille vingt et un ba léegi. boo xoolee màngookat bi li ko waral mooy bi ñuy créé ASC yi dañu waxoon ne Daaru Salaam ak Mor Daaru Salaam ak Ñaay ak Sagar Xul ñoom ñoo fa ñëw Daaru Salaam ñun fa lañ bokkoon ok léegi nag ñun ñu ne comme dañuy créé suñu ASC bopp mhm. dañuy jël suñu zone mhm. suñu zone fan la commencé mooy déggoo mhm. muy benn quartier. Mhm. nga jël Touba Seras. Mhm. muy ñaari quartier. Mhm. nga jël cité Mor Matissa. muy ñetti quartier. nga jël cité Pays muy quatre quartier. bi ñu waxtaanee à l'unanimité ñu di ci profité de rendre hommage Ama Ndiaye. yàlla ko yàlla yërëm ak Boubacar Diallo ñi fa nekkoon yëpp. te nekkoon ci gox-goxaat yooyu doon ñu fa teewal ndax Boubacar déggoo la dëkkoon. Ama dëkkoon ci le président. bi ñu tënkee nag ba mu des tur bi. ñu e bi ñeenti quartier ñoo ko ñoo ko bokk. ñoo ko sekk nañ jël carte bi ñu toftalee ya. ko yeneen man ko carte carte bi di symboliser les carte carte yi nga xam ne ñoom ñoo composé ASC ok loolu moo waral man ko carte lu bari sax souvent dañu ci interpellé naan ñu xanaa numéro carte la pour affaire ci côté confrérie yi mourid seen tubaab yooyu ok mais carte carte yi nga xam ne ñoo sekk ASC nggak ñoom ñooy ASC ma ASC Manko carte su doon laaj ASC Manko carte kon bi ambiance bi supporter yi nan nga nan nga ma si wax mu ne ah, foofu moom dinaa la fa wax loo xam ne lu am solo lay nekk. Mhm. dafa xaw a des tuuti. Mhm. ci manko. manko si waxtaan ak dañoo war a yëngu ci lépp. Mhm. yëngu fépp. mu xaw ma ay manquement tuuti. mais gëm naa ne loolu aussi dinañ ko saafara incha allah. bu soobee yàlla incha allah. waaye bu ñu waxee ne dama seetaan ñu dëkk Dalifort parce que ñun Dalifort la. ñii dañuy dañuy jël à chaque fois ne. booyu violent ñoo fa nekk xeex rek la ñuy def nouvelle génération te man maa ngi ñëw fekk booyu kiling nice toog sanse ba nice toog pourquoi booy booy ba di di di di wax loolu waa waa waa Daaru Salaam yow en tant président supporter lan nga si wax non non loolu xëy na gaa ñëw ñu étiqueté loolu lu tax mais yow mi ñëw fii nii mhm. li nga gis fi ne gis nga ay booy yu clean mhm. booy yoo xam ne mhm. ce sont des bëgg ay see bëgg football moo leen tax a jóg dara violence. Mhm. chaque fois qu'on un match. chaque fois match fair play. Mhm. on n'a même pas besoin de leur parler Nous savons mhm. que sport parce laps de temps trois mois nous dem nous dem équipe parce que quoi qu'on puisse dire résultat est fi. donc suñu équipe dañuy bégal supporters yi contents, nous sommes forts. mais même si nous perdons, dans le fair play. nous du dara. histoire chaque fois que nous perdons, nous dem waxtaan ak coach waxtaan nous sommes yi. Hmm. Nous la. Hmm. mais violence nous dañ koy mais ñun suñu côté amul. te ko sa loxo ma ñëw président. waaw ASC Manko 4. mi ngi fi créé yàggul 3 ans 3 ans rek ngeen ñëw ASC defi 20 ans yéen ngeen ñëw rek jël coupe. président am ngeen xaalis de. waaw sant yàlla. Mm-hmm. comme ni ko ñëpp di waxee li ngay wax noonu la dëkk bi yëpp di wax. Mm-hmm. ASC bi am na xaalis mais ASC bi am na sutura. Mm-hmm. sant nañ yàlla. parce que boo xoolee ñun suñu fort mooy entente suñu biir unité la ñuy liggéey kenn ku ne li nga am yéene ko ko ASC bi kenn ku ne li nga mën yaa ngi koy def ngir ASC bi mhm. boo bi ñu ko créé ñun suñu première participation quart de finale lañ toog mhm. première deuxième waaw première année bi de finale ñu gagné tiro bi deuxième deuxième participation bi ñu demaat quart de finale mhm. ñu Bari suñu troisième participation suñu borom yóbbuñu final lan mooy seen secret ñu jógee final suñu secret mooy entente bi ma lay wax ñoo ngi liggéey ñu ngi profité di rendre hommage suñuy ko mais mais président loolu am na seen ay yëpp entente bi déggoo bi am na fépp waaw mais loolu moo tax ñun ñu àgg fi yar geeg teggin. non mais waxoo waxoo na nga ko waxee secret daa am moom rombul yar geeg teggin gi ak dal gi ak ñaan yi rek ñaan yi booy yi xam nga. Mm-hmm. ñoom ñooy toog def teen ñi ci jàngal xuraan def li ñu mën. Mm-hmm. ñi jàngul ñi nekk yeneen conférence def li ñu mën. Mm-hmm. après ñu ànd rek dem football yi loolu rek mooy secret bi ak yar ak teggin amul leneen. président da nga may raso da nga ma koy rusa wax. <laughs> alaaji alaaji ñu nekk si émission bi lan mooy secret Manko 4 trois ans ngeen def ngeen ñëw rek am coupe. waaw loolu moom yërmande yàlla mooy secret Manko 4 yërmande yàlla parce que mm-hmm. ñun dañu mm-hmm. déggoo ci lépp mm-hmm. amuñu amuñu lu ñuy werante amuñu xel ñaar dañu nekk benn te yàlla dafa bëgg mbooloo mu ànd mbooloo mu nekk benn bu suñ nekkee benn rek suñu borom daf ñuy jàpp loolu rek mooy suñu la moom fii moom dañoo booloo doon benn entente bi lan lan mooy secret bi yéen ñëpp ngeen bokk ndey bokk baay parce que lu ma ñëwee fi dama fekk xale yëpp toog grand yi koñ yëpp génn lan mooy secret bi. waaw dañuy dolli sant yàlla. Mhm. parce que fii dañoo jël kilifa def ko kilifa. di mhm. rek def ko rek. Mhm. loolu mooy secret eh, moo tax lu bari rek luñ bëgg ci biir gox bi rek dañ koy am te dañuy yomb loolu. président. secret bi lan la. secret maa ngi ko kat. bien vrai entente am na. mais li laal secret bi dëgg-dëgg mooy dëggu. parce que xam nga dëgg ci la lépp xaj. gars yi dañ la duñ la ko wax rek duñ la ko wax sax mais ñoom dañoo dëggu seen biir. gars yi nañ ma gars yi nee nañ ma dama ko àndaale. <laughs> gars yi nee nañ ma nee nañ ma ASC ma nga ko gàtt équipe bu mystique ak ngoog. non pas que pas question mystique. Ah. waaw ñu bëgg lu ma mooy li ma wax sànq rek. Ah. gars yi ñoo ñu dëkkal fenn. Mhm. wala laps de temps bi ñu def di def résultat. moo tax ku nekk bëgg xam suñu suñu kii suñu secret. mais secret bi du dara lu dul dëggu rek. Mhm. gars yi dañoo dëggu. mu ngi ne ak président commission de sportive. léeg-léeg ñu waxante dëgg affaire yi tàng jër. Mhm. bu ñu génnee loolu parce que loolu ci dëggul ci dëggul rek la mun a la mun a am. Mhm. parce que boo leen di ànd dëggu amul dara du am. nan nan nan ngeen di gérer supporter yi bu ngeen waree dem match. nan la ñuy gérer supporter yi. ah wax dëgg fa yàlla supporter booy yëpp ñu ngi fii nii. xam doo wax loo xam ne amul. booy ku ci nekk ñoom dañuy génne. Uh-huh. wala dem xam nga moyens yi daf ñuy manqué parce que prési gàcce ngaalaama. Uh-huh. moom day daj lu ne ci ay sébi. Uh-huh. du nelaw ah. du nelaw mooy kii chaque instant day daj lu nekk ci ay sébi. dina def dina defal gars yi joueurs yi. ba pare joxaat ñu dara. ñun tamit suñu moyen bopp ñu xool ku nekk lu mu ciy génnee as tuuti. ñu mun a kii parce que xool dem c'est pas pour intérêt suñu poche mais pour intérêt suñu équipe la. dañ koy def pour mbégte. pour mbégte. pour bëgg suñu équipe moo waral ñu koy def mhm. waaw président ASC Manko 4 daaw ngeen jël coupe ren ngeen di football départemental mooy la moo tax ngeen di am résultat yi ngeen amee wala da ngeen commencé lase non lase wu eh, pour ma récupérer jël ñu woon coupe bi daa ah, ok ñun la woon ak Walida mhm. wàllu daan bi ñu demee ci prolongation yi wàllu daan dugal ñu bi mhm. muy un zéro mhm. j'espère que noonu la mhm. léegi nag ñaari équipe yi finaliste bi ak ki nga xam ne moo ko gagné ñaari dañuy dem départemental ok départemental yi aussi macha allah ñu ngi ciy profité di félicité waat gars parce que boo xoolee niveau yi du benn compétition yi du benn équipe bi équipe bu ndaw la donc dirigeant yi am na ñoo xam ne am nañ expérience mais am na loo xam ne man léegi boo ko comparé ak équipe yi fa dajal. dañ ñu gën a pare ci côté yëpp. te sport bi it fii ni ñu koy dundee dafa des. Hmm. parce que boo xoolee ASC bi moom mooy mooy defar boppam lépp. Hmm. mooy amul léeg-léeg dañuy seet ay kilifa yi di borom ñoo di sant ah monsieur le maire mhm. jàppale nañ ci mu am ci match bi passé mhm. yeneen kilifa nga xam ne suñuy xarit lañ ñoom kenn ku ne lim ñu jox mhm. gis nañ ko mu ndaw mu bëri sant nañ la ci ndax yéene bi mu am solo mais ñu ngi waajal parce que jot nañoo dem am defet demaat amat beneen defet léegi nag ñu ngi préparé benn match mu nekk match bu capital mooy suñu diggante ak Cité mu nekk ay dëkkandoo ñuy woote aussi non violence parce que Dalifort mm. benn bopp la mm. te yàlla dogal na ñu am suñu zone bopp mm. kon ñu ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi nekk kilifa yi ñun ñoo war la non violence non dinaa si ñëw incité waaw dinaa si ñëw kon ñun foofu rek mm-hmm. comme di nga mm-hmm. yaatal mm-hmm. mais man koo daal lâchewul benn yoo su ñuy seetaan si sax xam ne ne lâchewul mais dañoo dajeeg ñoo xam ne nag dañu gën a nekk ay compétiteur te ñu aussi moo tax it ñu gagné ñu te comme foofu it dañuy dem jàng jàng gën fa wut expérience gën a waajal suñu bopp bu ñu ñëwee ci zone bi ñu liggéey ñu fa delloowaat bu ñu yeggee def mhm. ñu ñëw si ñu am zone bu bees zone dix ñu war a tàmbali ak zéro instant équipe bi ba tolloo tolloo doole jamono bi ñu gis si ASC mag aussi nekk si ASC cité duñ ko si génnee ASC Dalifort ak yeneen yeneen ASC mhm. yéen man ko ngeen ñëw lan ngeen fas yéene andi si zone bu bees waaw dañuy sant yàlla. parce que gars nañ coupe bi dañ koy teg rek mais gars yi sant yàlla coupe bi moom ki ko yàlla jox noppi na. Mhm. waaw ñun ay jaam la ñuy sabab la. Mhm. te yàlla mu jox nu ko. Mhm. waaye li ma la mën a wax daal mooy nawetaani ren yi dana neex trop. pare ngeen. waaw pare nañu. parce que mënu ma wax ni pare wuñu. parce que kenn du jëm ci guerre naan pare wu. président léegi nee na léegi-léegi am ut ut uti moyen da ngeen da ngeen di sonn pour uti xaalis. waaw loolu moom. am ça veut dire amu leen xaalis. waaw amuñu xaalis. da ngeen di naxaate rek. non ñoo xay problème bi la boobu bëgg nañ nag. Mhm. am ñu ñu jappalé mhm. ñi sant suñu président aussi vraiment parce que mi ngi def lu mu man ak lu mënul. Mhm. ngir ci bi. mi ngi def lu mu man ak lu mënul. xam nga mi ngi daw. di def lu ne ngeen ci bi mën am ay moyens. mais ñi ngi wo aussi tamit ñi nga xam ñi ngi dëgg ci gox. bon volonté nek ci bon volonté nga xam ñi ngi nek ci quartier bi war na ñëw dooleel équipe bi japp lañu. ñun nak gaay jël nañ ko bi ba yobbu ko seen koñ ba pare. Ah. mais dooy neex lool. <laughs> président président gars yi nañ coupe bi jël nañ ku si teg sa loxo dañ koy dagg lan doon si loolu. non loolu ñun ñun si wax du ci bëri parce que ren wax daf ñoo daf ñoo warul. Hmm. on a été hmm. ci zone set bi. Hmm. kon ren leneen lu ñu def lu dul final lu dul jël coupe échec la. donc ñun ñëwuñu fi sax parce que. duñ nekk fii di nëbbatu tamit quoi. Mhm. suñu suñu objectif ren mooy jël coupe bi. jël coupe te fa lañ teg suñu bët incha allah rabi yàlla nañu jàppale nañ ko fi indi. du nekk lu yomb de. non du yaa ngi reetaan ni di ko ni on dirait que ay équipe yu ndaw ñoo nekk fee da ngaa xëy yeneen équipe yi yow. non fii amul lu yomb ñun bëgguñu sax lu yomb. Mhm. ñun nay metti rek. seen poule ñenn ñenn ñenn ñenn ñan la nga rappelé ko gars ñu ngi ñu ngi cité. Mhm. cosaan. ak kii Diso ah. Diso Bellera yéen a war a daje ñoo si ngeen war si bi ngeen war dajal Jafara man daal ngeen doon si ak non fii lañ daje match. non si de si de mercredi lañ war a daje. ah mercredi nga war a daje. waaw ci li lañ dajaloon départemental. si mercredi la incha allah zonal. waaw si de moo la ëpp doole de. non bu ma doole yomb na nii mais sur le terrain. maanaam naa am nga am nga équipe bu mën a dóor si yow pour yow. non mais ku wax ku yox waxu jël coupe. wax mhm. waxu ay premier match si wala ñàkk dóor si parce que léegi su ma wax da ngay équipe nawetaan xaalis la mhm. si seen biir wax maa ngi dégg ngeen ne ASC bi amul xaalis mhm. Cité moom man j'en suis sûr que moom pare nañ mhm. Cité j'en suis sûr que pare nañ yow en tant que support président supporter lan ngay wax supporter yi pour nga xamante da leen manqué nga xamante ne nawetaan bi wax dëgg yàlla war na mun a neex ngeen jéego si fair play bu nga xamante ne si da ngeen ñëw rek jaar si kawam non man li may ñaax supporter yi man chaque fois je leur dis am fii lan moo fi nekk mooy nañu takku liggéey rek takk liggéey yi génn liggéey mm-hmm. liggéeyal ay bi liggéeyal gox bi mm-hmm. liggéeyal manko ka mm-hmm. parce que après ñun bu ñu liggéey rek après day yomb tamit ci jour yi tamit quoi président wax na la ko moyen moyen ñàkk na mooy loolu noonu bëgg-bëgg manko ñun chaque fois dañuy dañ ciy génn te am nañ tamit yaakaar tamit gars yi nañ takk liggéey si mooy ñi nekk sama ginnaaw dañ takku liggéey commission sportive bi def seen liggéey après li ci des joueurs yi motal ko sur le terrain ah ñu comme niñ ko daan defee waaw couleur manko la Ah, vert blanc. mooy couleur comme couleur AG ak Cité tey su ma la doon laaj yow président yan yan yan yan équipe jox favori si si si si nawetaan bi. non nawetaan tuuti see bul nëbbu na nañu xëy na relax nañu waxtaan quoi amul nëbbu man. bàyyi eh, nga bàyyi bàyyi napp yi may def di waxee. <laughs> waxal. napp ma la de dama la ne ah, nawetaan amul benn équipe jamono ji. mais gars yi dañu jël yenn équipe dañu jël yenn équipe. tuutal ñoo xam ne dañoo yàkkamti ko yóbbu hmm. kenn mënu ko tere kenn bu neexoon man ko mu day jël ko. Hmm. kooku kan moo ko naan doo ko jël fekk football ko. Hmm. mais ku jël naa coupe bi téye sa coupe yóbbu sa kër di ko wax nii sa xalaat ni di ko rêvé. d' accord nañ ànd mais nawetaan bu ñu nee bu nawetaan i démarré. mardi ak mercredi di nga ci gis loo mosul gis. gis ay bu ñu nee nawetaan. waaw nawetaan xaalis la manko kaat parna ci si sur tous def na ñaar yooyu amuñ fi ben mystique ñun dañ ñukoy koy mi amuñ ci dara ñun mystique ñu ñun bu ñuy dem match nii yow ñu la ngay seen di leen ci sant di gaay jangal qur'an yi ñooy taree utal da ngay nga nax bi xam nañ ko. Ah? ñun mystique ñun mystique mhm. ñun liñ gëm moy 90% joori dañuy pare am mental bu baax wàcc terrain bi am out condition dem football mhm. le reste nak musique dernière solution la musique du dara ci gars yi dañ ñu koy taxé nii rek mais. lan lan lan moo composé lan moo composé ASC bi. lan moo composé ASC c'est-à-dire. section yu si nekk yi ça veut dire. Je il y a plusieurs sections. Tu sais il y la, la, la, de la commission mm -hmm. la section féminine. Mm la section éducative et culturelle. Mhm. am na yeneen parti secrétariat beeg délégué yeeg bari mhm. kenn ku ne aussi dafa am mission bu ñu la assigné ci autour de l'ASC yaa ngi def li nga mën. Mhm. mais tey da nga soxla woon ci jiite ndaw ñi ndaw ñi boo ko waxee mooy supporters yi. supporters yi mooy ñan ñiy gunge gars yi. gunge gars fan ca stade ba ca xare kon kenn ku ne dafa mission bu ñu la jox. mais ci biir comme ni ASC yëpp rek niñ ko composé. kenn ku ne am na loolu nekk man fi mu ne nii maa ngi ci li ma ne. en tant que administration maa ngi le président ànd ak secrétaire yeeg trésorier yeeg président commission mhm. Mhm. Mhm. tey da nga soxla ñi moo tax ñiy toog. bu ñu nee nawetaan chaque jour gars yi ñu yaakaar football rek la. nawetaan wa kat. lan lay def si si koñ bi lu dul lu dul lu dul nawetaan bu dul nawetaan bari na bari mhm. na li muy def ci koñ bi nga limal ma si ñaar ba ñett rek waaw parce que manko ayta ngi organisé di def ay seetal ci biir bi mhm. ayta mi ngi mi ngi saytu goxam mhm. lépp loo xam ne ay maanaam war waraloon na ci ci ci quartier bi mu mën ko mi ngi koy def waaw lépp loo xam ne war la woon na ci quartier bi mu mën ko mi ngi koy def l'essentiel li ñu gën a visé xam ne ñu ngi ci mooy wàllu set Mhm. ba suba rek yaakaar naa am na set setal bu ñu war a def. ci biir quartier bi pour quartier bi pour quartier bi waaw. Mhm. Mhm. président lan nga lan nga doole si lu mu wax. non li mu wax dama koy dëggal rek. te puis dafa am loo xam ne. dañ koy kii. lu lépp solo côté football bi. xam nga tey ñu bëri ñuy wax manko côté football bi rek. mais manko du ñu manko. ci nom bi parce que même bu dul côté football rek. dafa am ay yeneen événement yoo xam. dafay xew mm-hmm. mooy événement malheureux comme heureux mm-hmm. muy wàllum décès mm-hmm. wala baptême yooyu yëpp maa ngi ci génnee loxom lu mënta xew ci kon bi damay parle damay wax nag en connaissance de cause mooy kat koñ yëpp mooy loxom maa ngi ci génn lu ci mënta xew mooy nga am décès mooy nga am mariage mooy nga am kii

danaa am. Mhm. ñu ci bëri ak booyu ndaw yi. Mhm. ñoom ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. Mhm. mais ñoom buñu ak buñu sax di ci feeñ. ñoom ils le ils le font dans l'ombre. waaw mooy xam nga manko avant terrain bi c'est une famille. moo tax ñun lu ñu kii gars yi dañuy wax mystique bi mystique bi. mais famille bi moo tax ñun lu ñu yoot rek dañ koy jot. famille bu ñu jubóoyee rek yàlla day ànd ak yow quoi. waaw président lan nga dolli si wax. non xam naa ko rek. Euh, rafetlu seen la. Euh, manko mu ngi mu ngi yëngu ci lépp. Mhm. lépp luy jëmale gox bi kanam rafet a jigéen bi ñu ci yow. Mhm. dañuy intervenir aussi ci pàcc yëpp. Mhm. loolu moom dama koy confirmer. nawetaan bi zone bi. waaw zone bi moom xanaa di ko rafetlu. di ñaanal équipe bi nga xam ne ñoom ñoo koy diriger yàlla may leen ci ndam jëmm rek gisee na ak ñoom. gis naa seen yéene pour zone mm-hmm. bi mën a am benn succès mm-hmm. di ci profité rek di wax ñëpp nañ ci jàpp muy les autorités administratives les autorités coutumières et religieuses kenn ku ne li nga ci mën président surtout surtout insister surtout si si si fair play waaw ah, fair play bi moom mooy li may wax gaa yi fii rek adduna mm-hmm. léppay jeex te ñu ñii ñëpp ñoo bokk dëkk bi man toujours dama naan fii gars yi man nekk ma président ASC rek man ASC yëpp laay seeti ASC mm-hmm. def na activité dem naa dali for daaru salaam man lépp ñëpp laay dem mm-hmm. ba cité keroog dem naa ci ñoom Moussa Ndir mm-hmm. parce que dama jàpp ne ñu ni suñu posture sax may ñu ñu féetee fenn mais yàlla nag fii la ma boole muy man koo kat man nangu koy mais teewul nañ xam ne day jeex te benn un mois deux mois la nañ ko football si fair play que le meilleur kenn ku ne daal li nga mën moom arme mooy fexeel nga jël say joueur def ci ñoom li nga bëgg ci ñoom bu bësu match jotee nga indi leen teg leen ci terrain bi ñoom ñu def li ñu war a def loolu rek moo ci essentiel mais leneen lu jëlul loolu amul njëriñ parce que bu ñu xaañante mbaa ñu gaañante mbaa ñu day day gën a métti rek mhm. léegi jóg dem gàddu cent franc wala mille franc ñu dajal di faj ay eh, eh. kon jaru ko mhm. xeex bi ci biir terrain bi la Mm. kenn ku ne nag indi say soldat mm. te terrain bi ñu ñu di suñu soldat équipe yëpp léegi dafa mel ni sax dafa gën a neex parce que famille la Dalifort kese la c'est nous dans nous c'est nous dans nous dafa gën a mm-hmm. te le sport doit unir les gens mm-hmm. te waruñu diviser mm-hmm. Dalifort it ba ca Seras benn Dalifort la foog ñu am benn esprit de dépassement te aussi di nangu défaite man fii dama leen naan bu ñu gagné kaay la ñu fi bu ñu ñu wax suñu jeu mais bu fekkee équipe bu ñu la gagné ngay di porle Mm-hmm. loolu day day yàq nawetaan yi de. Mm-hmm. te ñu bëri dañoo fixé dañoo jël seen i bët teg ko ci zone bi. Mm-hmm. kon zone dix bi ñoom ñoo war a sensibiliser. seen i équipe. rawatina bu bu Dalifort mooy équipe bu mag bi moom la dëkk bi yëpp wax. ñoom ñu war a doon joxe bon exemple. exemple oui oui. buñ gañee. nañ ñibbi buñ leen gañee nañ ñibbi. buñ ko defee équipe yëpp topp seen ginnaaw. mais bu fekkee yaay équipe bu mag bi. ñépp na yow yaay équipe bu mag bi. Mhm. te sur le plan administratif yaa mag ñëpp mhm. ndax dali fort lañu. Mhm. kon yow joxeel bon exemple. ñu ngi leen di ñu ngi gis nag seeni liggéey mu ngi rafet. xam naa ne am nañ confiance lool ren. <laughs> waaw seetaan. ayca dara boobu nee na moom ku jël coupe bi. moom dégg naa ko gis naa ne te rek bi ñuy ket. Ah. dañu naan booy contribuer naa pour wan leen ne man ASC yëpp fu ma fa ASC fekk lu ma jox leen. Ah. mais nañ ko def ci non violence. non violence te ku ñu gagné. gàddu tay bagage nga ñu. il il faut yéen ngeen yéen ngeen ngeen tàmbali bu équipe bu def violence yooyu ñu sanctionné la génn ah. parce que parce que parce que parce que dañu bëgg zone bi mu nekk zone bu dàq ci zone yëpp waaw mën naa ne de ñu football football bu rafet ñu génn fi ay talent pourquoi pas dali fa dem ba am benn benn benn équipe bu jël championnat war nañ ko mën a def lépp mën ne xam vision la mhm. tey mhm. dafa récolté ay talent yu bëree bëri si côté pàcc yëpp sport bi karaté bi mhm. amul dali xoolal waa Founkiane Coupe. waaye récemment lañ dem France toj foofu. si làmb bi la. waaw kon li am solo mooy municipalité bi. ak li ma wax ci autorité yi nañu toog gën a waxtaan gën a xool nan la ñuy appuyer kenn ku ne ci li ñuy yëngu yow mii rek. exemple modèle nga ci ndaw ñi. tegal président teg naa ko fa. yi. waaw non violence bi. ASC bu bees bi ñu terminé foofu. waaw manko moom bi muy manko ba léegi. mosul mhm. am violence. Mhm. jàppoon nañ sax bu ñuy jox. équipe fair play mhm. moo ko kat nañ ko jox seen verset esat man loolu laa yaakaaroon quoi mhm. parce que depuis ñu créé ak léegi mhm. di dem esat mosuñu xeex mosuñu xuloo mosuñu di problème parce que ñun loolu bëgguñu ko ñun dañuy foog yàlla def nag ñu indi ñu zone bu bees ñëpp ñu dëkk xamante lorante xaju fi defante baax moo fi kon man damay wax tous les supporters. Mhm. muy supporter bu Mankoka di supporter ASC Daarou Salaam di supporter ASC Dalifort di mhm. mhm. boo xam ne mu ngi ci mi ngi ci mi ngi ci zone bi. supporter ñu am ñu am xel. am am dal. ñoo xam ne lii foo rek bu jeexee jeex na. bu jeexee jeex na bu ko kenn def loo xam ni jeex la. match la day jeex quatre-vingt-dix minutes bu bu bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na. président lan nga ñuy wax ci violence bi. ASC ah, zone zone bi ñu war a commencé bi incha allah. non violence mooy benn affaire bu ñuy déplorer la. Mhm. benn boo xam ne duñ ko rafetlu muy suñu zone bi ak fépp. Mhm. duñ ko rafetlu quoi. Mhm. que ça soit dans le cadre des sports wala ak leneen. bon pour wax suñu zone bi zone Dalifort la. boo nee moo ŋànk fi yëpp. donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. pour wax rek lii jongante la. foo la kaf la ak ree mhm. ñun ñëpp nañu ànd bokk ndey bokk baay mhm. dem fooy bu jeexee jeex na ku yàlla may ndam mhm. ñun comme niñ koy defee d'habitude ah ku yàlla may ndam dañ lay féliciter ñibbisi buñ ko naree buñ naree buñ naree am beneen affaire fii lay suñu biir ñu ñu critiqué woon te suñu biir mais day doon critique constructive on le fait entre nous kon wax dëgg fa yàlla loo xam ne ñun tàmm ñu tàmm ñu di ko def fii duñ ko yóbbu feneen noonu lañ yaree suñuy ndaw ñun noonu lañ mel gars yi noonu la ñu yore te ñu ciy woo ñëpp nag ñi ngànk mhm. ci zone bi yëpp mhm. ne Dalifort suñu yëf la mhm. Dalifort suñu moomeel la waruñu koo yàq ñu ko war a téye ak suñu ñaari loxo na doon zone bi gën a neex ci wàllum football ambiance gars yi fa la ñuy séentu lépp ko teg suñu ginnaaw xool ci kanam koo jël ndam li indi ko jaajëf président ñu tëj la gërëm la ñu sant askanu Dalifort yëpp di lancer appel à tous les présidents des ASC. nañu waxtaan ak seen ndaw. waxtaan ak seen i ASC ñu jiital fair play ak sportivité. parce que dans toute compétition foog mu am ku gagné ak ku ñu kon nañu xam ne Dalifort. moo ay ren. te ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite zone bi. ñun li ñu leen mën a jàppale mooy sensibiliser suñu nit. sensibiliser suñuy ndaw sensibiliser suñu équipe sensibiliser suñuy dirigeant ba ñu xam ne li ñuy uti mën nga koo amit mën nga koo ñàkk parce que da ngay dem guerre rek man ngaa gañe mën ngaa gañ mën ngaa ñàkk gañ léegi ñaar yooyu nag benn bu ne bu bu la ci mën di arrivé ci jour boobu nga xam nan nga koy gérer ba yegg ñibbi ak ñi nga lool ba pare félicité ñi nga xam ne ñooy vainqueur parce que man équipe yëpp muy Dalifor ba fii nee naa la ñëpp samay xarit. boo xoolee équipe Dalifor ay ñëpp ñoom ku yàgg boo yëpp samay gaañ la. Mm-hmm. kon yéenewuñ benn équipe lu ñaaw. Mm-hmm. mais dañuy xam ne rek gox yi dañoo wute kenn ku ne gox ba nga boo sañoon mooy gën ci gox yëpp. Mm-hmm. mais gox yëpp. fu ci mën di jël ndam li tey mm-hmm. Dalifort a ko gagné uh-huh. muy Dalifort muy Cité muy Mankookat muy Daaru Salaam fu ci mën a jël tey nekk équipe champion mm-hmm. mais nu mu lay wàññi dara wàññiwul kenn dara kon lañ leen dem ci compétition bi dugg ci bismillah jàll ko ci alhamdulilah di encouragé ñi nga xam ne ñoo jiite sone bi mm-hmm. di encouragé aussi mairie yi ak madame la ministre bi nekk fii. ak yeneen entreprise yi nekk ci gox bi ñu accompagner zone bi. accompagner équipe bi. ba ñu mën a dem ci compétition bi. ça aucun problème ci jàmm ak salaam. merci kàddu yu mujj la leen doon. waaw di rafetlu seen taxawaay rek. mooy li ma tàmbale woon sànq. Mhm. di am kontaante bu baax a baax a baax. Mhm. ñu dellu di wax rek. nañu nañoo xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm. man saa su nekk li may wax ci équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci ci commune bi yëpp. ñu xam ne rek ñun ñoo bokk kenn ku ci nekk. na wax ak say supporters. ba nga xam ne dara du dara le ci nawetaan yi. ñaanuñu yàlla ñu dem ba ci biir nawetaan yi di am di am ay jafe-jafe bëgguñu ko. Mhm. bu ñu sañoon nawetaan yi dafay àgg. Mhm. di nuyu suñu dëkkandoo yi aussi. Mhm. di nuyu ay seet Daaru Salaam parce que fa la ñu nekkoon ñun. nekkoon fa président commission sport. dund ak ñoom nekk ak ñoom ci jàmm. su yàlla defee ñu itam jëm ci compétition bi ñun ak ñoom. day nekk lu am solo. Mhm. ñu wax ci ñoom parce que ñu mënuñu wax euh, ci Manko du Daaru Salaam. Mhm. Daaru Salaam nag dafa dañu dañu tàmbalee foofu. Mhm. tey bu ñuy wax naan Manko kat. Daaru Salaam a tax. ndax Daaru Salaam moo moo gën Manko kat. di leen nuyu ñoom tamit di leen dellu di jaar bu baax. di wax ni nag sànq dégg naa léegi nga naan gars yi ne leen coupe bi. mu ngi seen loxo. mais Darou Fane wax na ci xaatu de. Mhm. <laughs> des ñu ciy gannaaw de. waaw mhm. ñoom tamit danañ ko teg ñu dagg sa loxo de. Mhm. kon yaakaar naa ma ma gaa taxawee noonu. ay sa yëpp taxaw noonu. kon coupe bi fan la jëm. day neex la jëm day neex. non yaakaar naa monsieur Mbembe bi day neex ren. day neex <laughs> nawetaan bi day neex trop. day neex aussi maa ngi sant sama gars yi fii. ku mel ne am di sant ku mel ne Fallou Pasek. di nuyu ku mel ne coach Alpha. di nuyu coach Laye Diop aussi. Uh-huh. Ah, di di di rafetlu seen liggéey. Uh-huh. di di nuyu Ibrahima sama adjoint. Uh-huh. di leen nuyu bu baax di di wax ni. fii ñu toog. ñoom mënoon nañ fee toog. li ñu wax. ñun ñoom bu ñu toogoon it loolu la ñuy wax. kon ñu jàpp ne ñun. pour toog waxal manko ñun ñëpp benn lañu. mais bëgg naa boo paree ci ñun aussi. lu mhm. mu dee dee dee ñi nga xam ni mën nañoo ñëw jege si la. ñu mhm. nga jël leen ñoom ñu wax ci seen allah joxal ma waaye kàddu yi mujj la lay ñu ngi leen di remercier. Mhm. di rafetlu seen teewaay fii nii. en fait di wax ne zone bi. ñun ñoo ko bokk. maa ngi woo président supporter yëpp. incha allah sax président ma yóbbu ñu ñu dem gisante ak ñëpp. pourquoi pas ñun ñëpp ñu waxtaan suñu biir. ñu gën a ñaaxante tamit. ku nekk boo delloo dem ñaaxante dem ñaax. ñi nga ñi nga ñi nga jiite. Mhm. dem ñaax leen ne lii yëpp benn bopp la. Mhm. ñun ñëpp dali fort la même zone bi la mooy loolu mooy li ma waxoon sànq rek. Mhm. dañuy ànd dem foo kafre bokk ndey ak baay. mais nag du tee yàlla may manqué woon ndam li ñu indi ko fii nii. mais di leen wax rek affaire yi dañ ko def dans le fair play mhm. dañ ko def dans le fair play parce que ñoo far mhm. di woo président Bangoura ci loolu mhm. mu jàppale ñu mu jàppale supporters yëpp ah mooy loolu noonu ba pare gars yi tamit sécurité bi mu mot sëkk parce que bu ñuy laa bu ñuy wax violence tamit waa zone am nañ ci kii quoi waa zone nañu indi sécurité bu mot sëkk mooy loolu booy bañ booy bañ a déraper yaa ma gën a xam incha allah waaw jaajëf mbokk maa leen di sant di leen gërëm ñu defee ko ni ñu ko defee woon ak ASC Dalifort noonu lañ ko ñëw defee ak waa Manko di leen sant di leen gërëm à allah.